parce que émission bi bi muy am tey fan yii ñu génn dégg nga débat bi am ci trois cent personnes yi nga xam ni ay ndaw lañ yoo xam ne dañ ne kenn gisagu leen ñii ni réer nañu ñii ni dee nañu ñii ni kenn gisagu leen drame récurrent boobu bi nga xam ni moo frappé jeunesse su réew mi ak jeunesse su Afrique de manière générale parce que li nit ñi di fàtte mooy senegal dafa mujj doon carrefour pour gars yi dem ci mbëkk bi fii la ñëpp di daje ñii di dépare Kafountine ñii di dépare Mbao ñii di dépare Mbour ñii di dépare yi fu nekk suñu gaal yi nga xam ne daan nañ nappi jën léegi dañuy yóbbu xale yi ñuy dee je crois que ñuy méttitu loolu naam version yi bari na ñii nee nañu kenn gisu leen ñii ni dee nañu gouvernement mi ni amagul lu ko leer ci dee nañ mais c'est surtout le drame que vivent aujourd'hui seeni njaboot seeni mbokk ak réew mi loolu la ñuy mettre en quoi di wax notre compassion ak suñu soutien ci seeni famille ci seeni mbokk ci askan wi yëpp te di leen ñaanal ñooñu yàlla na leen yàlla gindi yàlla bu ñu dem ci taatu géej gi comme ñëpp yàlla na yàlla wan leen yoon wu tax ñu dem egg ca fa ñu jëmoon mais drame boobu dafa ñu interpellé ci ku nekk ci ñun ku ne Sénégal rek la ñor parce que su fekkee réew mi moo ñu ñor xale yi Sénégal seen tey ak seen ëllëg parce que xale yi kenn dootul wax ëllëg xale yi ñooy tey ñoo ëpp ci population yi ñoo ci ëpp problème ñoo ci gën a sonn du xew ñoo ciy gën a dee te seeni solution seeni problème amaguñu solution yu donc ma doore woon foofu méttit lu loolu